مكسل صلي غار لم تور بوغير جيك لخ جيت البير رفل قص رفل خطر اي جاب ندلوك ندسال اه سون اكسلانس باخ باخ باخ سون اكسلانس سما دوم دي ييف با با با دماني واو كوي رام انت فرن كولاي دغ لا ندخ يو رام باي فرن كولاي كون نك بريسيدان دو لا ريبريك سيري مريم فيصل جيك لخ

non mais na arrêté ti soli yi quand même. Mbaye Mbaye. oui mais lii. da a génn saal bi xanaa parce que du ma génn. non continué la bu dee dañ la yabal pour nga ti soli sama kanam. continué la continué président. li ma tax a ñëw eh mooy euh, en tant que famille lex moo ma tax ñëw. Hmm. en tant que famille lex askanu parce que président ku ne xam ñëpp a ngi doon laaj ban askan laa bokk. Hmm. man askanu lexeen laa bokk. sunu famille ma nga ca lexeen hmm. di askanu yaatu pe xam nga ma bu baax xam naa la bu baax waxal ma ci askanu lexeen ma boo koy seet jàppal kii toog askanu nguuxeen boo koy seet jàppal jëmm ji déet bàyyil nguux nguux dafa bàyyi ah. boo koy seet jàppal kii toog hmm. askanu ngaxeen boo koy xool jàppal kii hmm. koo may koo tibbut may lex du am lex kuy sama ko xool say lex xam na mu ngi hamburger benn. am nañu leex. bëtt bi dina dafa tàng hamburger président de la république. am na mayonnaise eh hamburger bi am na mayonnaise. am na mayonnaise am na lépp am na pomme de terre. dégg. frite frite. am na frite. waa télé bi tey dañoo dégg. li nga def si mbay mi. jéggi na dayoo. ñu indi la gerte. Mm. tegal la ko noonu. Mm. sawet mm. ay ca président doxalal. waaw di wax ni am mbégte ak contentement hmm. hmm. ndax gerte gi consommer local la ndax plateau bi ma ngi nuy Yves hmm. nuy ñi tok fi ñëpp Yves boko xolé xamni ndanal la te dafa liggéey lu am solo ci Sénégal man duma dem ci n'importe quelle émission ah mais guddi gi dafa xew maré ma ne ma juggal nga dem parce que guddi gi dafa xew ki ma ngi koy ndax famille la bokk nga def <laughs> waaw famille la bokk ki xanaa euh, euh, la xala jur nga deug wax nga dëgg ndax di if waaw papa waaw kontaan nañu de. du du nuyu àddina yëpp. Hmm. ndax Sénégal liñ bokk xaju ci kopp. Hmm. bu kenn yéene sa morom wopp. Hmm. di ñaanal àddina yëpp. di lay ñaanal yow. nga gudd fan. amiin naa la wax benn wax. di ji if neel seng sa kaw ñëpp di lay seen. te ñu la jàkk bañ laa piis. loolu la sëñ Fall waxoon de. sengoon sengoon kon nag doxal. di wax ne télé bii. yàlla na fi yàlla def jàmm. amiin waay bii. yàlla na wuy. di dem. kontaan nañ ci yow. ndax man. Mm-hmm. Mm-hmm. damaa kontaan ci yow. maa la gën a kontaan maa la gën kontaan. ndax da ngaa fuyal sa baay mbay. kon nag famille lax ak lii. ba nga demee waa Fatima loo leen wax eh? Biruno. ah Biruno jaata xaw ma Biruno nu mu tudd. Biruno Missi famille lax Biruno jaata mi war nga ko yóbbu si ñu opéré ko sol ko ndawal. waaw non kii jéem nañ ci ba sonn mais <laughs> demul. dama lay waxal benn affaire. non ki maram chaque jour mu sol ko. mbaam mu yooy mbaam mu yooy tey lekk fanweeri kilo te mënta yeb 5 kilo. Eh.

président bu yox kenn du ko dagg kenn rek laa gis mu sañ koo def mhm. mooy ministre Mbaye Ndiaye président taxa di wax nga ñëw këf micro bi naan fañing fañ fañ fañ fa waa caaca dem na xool ministre boobu rek moo ko sañ <laughs> ministre ba alors euh, yaa ngi fa woon waaye yow bi nga gisee Mbaye Ndiaye daw këf micro bi di di wax ci place su président tiitoo uh-huh. yow mi yow tiit dama ne Ablaye Wade la may fàttaliku hmm. ndax bi muy falu hmm. mu tombeek hmm. suñu indépendance. Mm. mu ñëw. Mm-hmm. bi mu rombee noonu waa marine topp ko. Mm-hmm. naari góor yi topp ca. Mm. mu euh, xëcc yi topp ca. Mm. ndeylañ topp ca ñëpp topp ci. ma ne sees bii ngay romb dafay dem. di jàll yàgg nañ laa sànni gërë naan nga fay dugg ndax bëgg teraanga Sénégal dum. dëgg la. ndeysaan. wadd fara wadd njàgg la may fàttaliku. ndeysaan. Mm-hmm. boo mosoon a ñëw këf mi ko daan mbay waxal. mbay peex waxal yaa war a wax. na jël mi micro. Hmm. na ko wadd. Hmm. fara wadd njaag. Hmm. yërëm nga askan wi bëgg nga askan wi doy na leen nga doy loo leen. mais eh. kay lam def maa ngi fa toog. mais bi mu këfee ne Ngor Sarr rugu jëm na xulum. ak fan fañ fan fan sa waa caacaa. fan yi fan yi fan sa waa caacaa fa ma toog dama doon lox. Ah. ndax damaa ah, xam daa am fit. damay dama dugg si man Ablaye. ah gis nga de. Ah! sa waa jàngoo bul ma tàgg far waati njaaj. nee na nga ma tàgg. bàyyi Karim bul ma tàgg dama bàyyi Singiri bul ma tàgg. yow warkat pire la Serigne Tidiane. non père dégg déglu ma warkat nga. Ah. père li ma la defal ci gën a aduna yow eh amoo looy wax yow père jëndalu ma la gën. jëndal nga ma kër nga ca père ku ko tabax. yaa ko tabax. oto ba ngay dawal ku la ko. yaa ma ko jox. père looy war. waruma. looy war waruma. da nga war. ndax nee naa nit daan may mbokkam. yëngatuma sama tur képp kuy xuus di xuloo boo laayee tefes. <laughs> sa jàngi peex maa ngi seetaan dégguma nga nga. jàngi peex yi mënutoo weesu ma ne Abdoulaye Wade laa ko tuddee son excellence. waay Abdoulaye ah. Wade laa ko tuddee laa ko tuddee euh? nga ne lan. Euh? ci lan bay. vocal bi est-ce que la. ma ne ci ban vocal. vocal bi nga envoyé woon euh, di la. man la. man la man Cissé Lo hmm? man li may wax du ma ko nëbb. Hmm. saaga ci suuf ma saaga ci kaw. moo ma wax ma ko boo ma waxatee ma saaf. maa ko wax. Hmm? wala ma seppi. man maa ko wax. man maa tooñ farba. boo ma ko waxatee ma xorom. ba bàyyil ma saaga bay. ah. Eh? bul saaga de. lu tax du ma saaga eh? kilifa nga si biir bu dee kilifa laa ñu may wax lu bon nag. waaw ah, Cissé Lo dañ laa jox cër. waaw ah, Cissé Lo lan la lan la. yow da ngaa da ngaa da ngaa histoire ba say doom jàppale tëj la yóbbu la clinique ne la noppalukul. man la war ngaa noppalukul man la ñu tëj. ah man xaw ma woon ne da ngay sos non xaw ma woon ne da ngay sos man Cissé Lo du ñu ma tëj. Ah. may Sénégal. ah man maa ni mut sama mutaay toog. nanguñu say téléphone yóbbu la clinique. kan moo wax loolu. sa sa doom. ay day fen. junior lo moo ko waxul may ma sama jàmm nga ma junior loo waxul dëgg. waa si c'est loolu li ngeen jàppante yëpp ak Farba jubóo bi nag. ban jubóo. ah jubóo affaire seytaane yooyu aw ma droit jubóo. bu ma toogee ba mu yàgg makki ne ma kaay jubóol du ma jubóo. nañ ma xam te dëgg. waaw maître maître El Hadj Diouf maître. dama ne lan la. la. maître yow tamit yow. yow tamit say mbir yow tamit foog ñu seet yow met tey nga ne Abdoulaye sama xarit la. waaw suba nga ne Macky sama xarit la. waaw gannaaw suba nga ne Sonko du dara. waaw gannaaw suba nga ne Barthélémy du dara. Abdoulaye Mbaye yow noppil. ni ku bëri xarit yaa gën a yow hmm. hmm. parce que yow man dama man man boo ma xoolee xam ni. ci wax ju man man mës nga maa am. Hmm. ma ànd ak ki nga xamante ne moom leen laaj. ah waaw jaame bu muy xuloo ku ma àndaloon yow Ya jàmme ya jàmme Macky Sall bi muy ya ci lu baax mm. man man man ci ya maay ya man ya luy dem dama ya topp ya du ya ànd ak bu nit ñi jaare ya nii lay jaar xam nga ya waral parce que je suis l'avocat du peuple mais yow bi nga bëggee dem kër Idriss euh, kër ya mu ya di ya ba kan bi ya Wakaam ki nga ya layal ya jékki ya après après après ñu ne ya ne ya dala ya xëy rek croix la da ko dugg a ñu ne doo fa dugg yow. lan fa wax ngay jibile ci tali bi. lan fa ah, waxal parce que naa tey. lan waxal ci suuf Issa Habré bu mu ma ne ma dàqee man man li ma fal yàllaa ma fal man Issa Habré munu maa munu maa ah, ah, kenn déggatu ko. ka déggatu ma yow da ngeen déggatul. kenn déggatul yow wuy ma yow ca corona ba. kenn déggatul may may ma sama jàmm. lii lañ la fa jàpp. ñëw. élection maire benn voix la am. benn. jabar ma ko wooteel. man ba muy woote ji ñu ne ko tëj nañ bureau yi da ngaa man mii man mii la laa ñëw l'avocat du peuple futur président du Sénégal. Sam waaw ah. Sam école Sam gëm doo wootee. Ah. jabaram yow fajar ah meetar. Eh.

tey dinañ la indi lu ne mm-hmm. balaa ngay démarrer sa émission gis nga mm-hmm. ñoom ñoo démarrer mm-hmm. émission bi Zeyna mu nekk loo xamante ne euh, ñi il faut ñu jàppale leen boo amee ay talent yu mel nii amee artistes yu mel nii yéen a ngi doog bokk benn plateau yeen ñett te mu ngi mel da ngeen yàgg tourné waaw Zeyna. jërëjëf mm. waaw li mooy <laughs> euh, euh, li aar en fait mm. li mooy aar aar da nga koy mën. Mm. ah da koy mën soo ko mënee fu ñu la yóbbu da nga ci mën a nekk. Mm-hmm. ndax mm-hmm. Euh, sànq bi muy wax pour man son excellence monsieur Macky Sall la fi toog <laughs> ah uh-huh. protocole ñëw. dama yëgati ci 16 bi. Mm-hmm. kii jugee fële moom.